Nous nañu ñëw ñu toog waxtaan xool nan la ba le développement de cette collectivité territoriale ndax kenn ku ci ne am na ci place. di gërëm bu baax suñu sœur du parti socialiste Mandir Diagne ma ne est indivisible. Nous bokk ku ñu gëm ñoo bokk ku ñu bëgg le président Macky Sall. Nous nag kenn dong moo mën a jiitu ñu si des ci. c'est ce qui nous a permis en 2019 ñun ñëpp ñu ànd président Macky Sall jox ko réew mi au premier tour. je suis le maire sortant. je dois défendre le bilan du président Macky Sall dans la commune de Bambilor. Et c'est possible. Et sur ce, nu ngi ñaan suñu collègue yi nga xamné ay élu la won wala ñi nga xamné ne élu ta bokk APR comme président Macky Sall nañu ñëw ñu bokk gal gi ndax nak kenn ku ci né xam nga kala man nous disons la vérité nous sommes des hommes politiques nous ne serons pas dans une salle pour demander notre investiture nous ne ferons pas de point de presse pour attaquer qui que ce soit, pour détruire qui que ce soit, pour demander au parti de nous investir. Nous montrons à la face du monde ce que nous avons fait depuis 2014. Cette jeunesse qui a espoir au président Macky Sall, qui est en train de poser les actes de l'émergence, moi je pense que cette jeunesse, nous devons vous accompagner pour accéder à l'émergence prôné par le président Macky Sall di gërëm bu baax les organisateurs les communicateurs traditionnels la presse gërëm bu baax groupe bâche gërëm 1 di gërëm bu baax la sécurité mais monsieur mais monsieur le ministre d'État dama bëgg nga may ma à gërëmaat Timbo. Jimbo manoon ne nañ dañ département de Pikine mais cela prouve monsieur le monsieur le directeur le PCA de AIBD que vous travaillez pour le président Macky Sall, vous travaillez pour la grande coalition, de, euh, pour la grande coalition Benno Bokoyakar. yakar Je ne man pas. ma ko ne du pas fal mais le président Macky Sall je tax mu avec tous les maires de Pikine pour venir m'accompagner sur l'investiture du candidat qui va gagner les élections au soir du 22 février Mané, 22 janvier Mané. ne ñun du ñu def conférence de presse di xas nit nous ñu ko def di demander pour nous investir ñu wala nekk ci réseaux sociaux yi ndax suñu kilifa yarew ñu loolu muy président Macky Sall dajale leen askan wi wax leen li ngeen leen def bu ñu leen wóoloo ma joxaat leen am deuxième mandat et c'est ça que nous les populations ont fait aujourd'hui donc merci aux populations de la commune de Bambilor Ablaye merci Thierno Malik, yalla na yalla fay ndax li nga def dafa am lu bari lu mu ça prouve nettement qu'il c'est le bon candidat et le bon candidat c'est moi et il l'a dit partout donc